asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokku gurubu waqul jaa alxaqu wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa seen mbokk seen xarit Mouhamadul Busayri eh, tey ñëw nañu ci ci benn jotaayu spécial boo xam ni dañ koo jagleel eh, waxtaan ci xew-xew ya nga xam ni moo xewoon ca bisu uxut maanaam bisu xare uxut euh, waxtaan ci xare uxut nag damay jàpp ni euh, ñaari jotaay lañ koy def bu fekkente ni bëgg nañ waxtaan wi euh, nekk lu leer jaare ko ci ni ko yàlla subhanahu wa Euh, ni mu ñu ko nettalee ndaxte euh, jaar jaaru yonente bi alayhi salaatu wassalaam da cee am jaar jaar yoo xam ni euh, jërul ki nettali di sonn di dem ci ay téere maanaam di xóot ak gëstu di ko xóot di xóotal ab gëstu ci téere yi déedéet alquranul karim moo la koy leeralal maanaam alqur maanaam alquranul karim moo la koy leeral ba mu leer nañ te li ci alquran di wax mooy gën a wér lépp lépp li ci keneen wax ba tax na te bu fekkente ni alquran euh, moom nga ñëw moom nga nettalee li ngay nettali yow yaa gën a wér nettali ci ku ma sa nettali dara ndax nettali alquran moo gën a wér ci day nettali loolu moo tax tafsir bi ñu waroon def palaasu tafsir bi buñ koo def ñu def ko euh, nit wax ci xare uxut bu ko defee nit def naa waaw euh, tafsir alquran ak wax ci siire ñaar yooyu ñaar yooyu ban ban relation lañ am buñ ci ñëwee rek da xam danga xam ban relation lañ am ndaxte da ngay gis benn euh, xare boo xam ni gazwa boo xam ni ci alquranul karim Euh, moo tax benn Ibn Abbas nee ku bëgg a xam xare Uhud demal nga jàngi euh, Al Imran xoola gis nga ku bëgg a xam xare Uhud demal nga jàng Al Imran ku bëgg a xam xare Badr demal nga jàng surat al euh, surat Lanfaal Lanfaal ci gisee loo xam doo gis ci benn téere ci benn téere ku bëgg a xam xare Tabuk demal nga jàng surut Euh, tawba ku bëgg a xam xare xandak dama nga jàng surat al ahzab kon gis nga euh, nit ki am na ci loo xam ne jërul muy sonn euh, yàlla leeral na ko ci alquran bu ko defee nag yow ci tafsir bi ngay tafsir ci ngay waxaale li nga xam ni ma nga ca boo ñëwee ci xare Uhud ku ne xam na ni Uhud après xare Badr la ci atum ñetteel atum ñetteel bi mu dugg see waa Quraysh ñoom ba léegi rek ñu ngi denc ay mer Quraysh nag mi ngi préparé Euh, pour fayu si la ñu leen defoon badar yonent bi dafa gént sallallahu alayhi wa sallam dafa gént nag woo ñu rendi gént jaasi joo xam ni dafa dem ba xomaat jaas ju xomaat maanaam jaas joo xam dafa dem ba xomaat nga xam ni euh, amatul génnu ñaw dafa xomaat wante mu gis ci gént gi tamit mu jëkk ba yaa gis mu dugg ci benn euh, mbubbu koŋ mbubbu koo xam dañ koy dañ koy défendre ci xeer mu dugg ci léegi ba mu waxee loolu saxaaba yi ni ko yaa rasulallah lan nga euh, maanaam gént gi loo ko firee mu ni nag mi nga xam ni moom gis naa ko ñu koy rey kooku moom mooy ni dana am ñu ñu rey sama ci sama saxaaba yi jaas ji ma gis nag mu nekk jaas ju xomaat mooy ni nit ku ma jege maanaam nit ku bokk ci man dañ ko rey fi nga xam ni nag gis naa ni dugg naa fa muy koŋ maanaam lu loo xam ni dafa aaru dafa aaru ak kaaraange la loolu madina la al munawwara léegi nag Eh, ñu ni ko far ñu ni ko ya rasulallah quraish ma ngay ma ngay préparé pour ñëw dal si ci sa kaw ca quraish ñoom eh, ba léegi rek eh, maanaam la leen daloon ca Badr naqar woowu moom ba léegi ñu ngi ko garde waxuma la sax gañe gi leen gañe wante rey rey ñi nga xam ñooy kilifa dëkk ba kilifay màkk màkka abu sufiyaan du kilifa ga ndax màggu fa wante ña kilifa ga ña kilifa màkka rey nañ leen loolu nag eh, ñoom waa Quraysh dañ ko bàyyi noonu mu dem ci la ñu dajalee nag ñetti téeméer ñetti junni soldaar ñett ñetti junni soldaar yi nag dañ ko dañ koo jële ci yeneen ci yeneeni qabail maanaam dañoo woote Abu Sufyan dafa def benn euh, woote boo xam ni ci ay qabail euh, ci ay diir yu bëree bëri yoo xam ni dafa amalante woon ak ñoom ak euh, ay ay ay ay yoo xam ne bu ñuy xeex bu ñuy xeex dañu leen di dimbali maanaam loolu am na ci am na maanaam ñi nga xam ni ñi nga xam ni ñoom banu abdi daar rek ni ñu toll ci wàllu ci seen lim ni mu toll kon gis nga maanaam daal wuy si nañ ko Quraysh moom wuy nañ ko lool maanaam yéeféer yi nga xam ne ñoom ñoo allié ak moom wuy si nañ ko ba mat ñetti junni xam nga ñetti junni nit loolu amul màkka wante dañ koo dajale ci yeneeni giir ñoom lii mooy seen préparation kon ñoom seen ak sababu raisi mooy cause principal bi nga xam ne moo tax waa Quraysh di préparer pour dem xeex Uhud mooy naqar wi ne ci ñoom ak gañe ga leen gañe woon rey ga ñu rey ak rey rey ci ñoom ay kilifa jàpp ci juróom-ñaar fukk rey ci juróom-ñaar fukk lii moom la Quraysh mënta muñ ba léegi moo tax moo tax ñu dajale lii ci ay nit ngir nar a songi Muhammad sallallahu alayhi wa ak ay saxaabaam léegi ñu wax loolu yonent bi ni ko yaa rasulallah waaw Quraysh de ña ngay eh, préparé lii ak lii ak lii ak lii ci ay soldat war nañu mat ñetti junni ngir xeex seet yow foofa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, toog ak saxaaba yi comme yàlla daf yàlla daf ni ko euh, wa shawirhum fi l amr fa ida azamta fa tawakkal ala allah maanaam diisool ak saxaaba yi mbir mu mbir mu nekk di del diisoog saxaaba yi ci mbir mi say mbir heure boo demee ba dogu nag léegi nag euh, wakkilu ci yàlla ca dem ca la dogu léegi bi mu diisoo ak saxaaba yi mu ni saxaaba yi nañu euh, euh, maanaam nañ xeex ak ñoom ci biir ma ci biir ma Madina nañ xeex ak ñoom ci biir Madina lu tax parce que ñoo gën a xam euh, ko ma diina yi maanaam suñ biir dëkk suñ biir dëkk ñoo leen gën a xam ñoo gën a xam ban stratégie lañuy la ñuy taxaw ba mën a xeexal ñoom gañe leen ndaxte seen seen lim dafa bari nañ xeexal ñoom ci biir Madina léegi nag shababu Quraysh yi nga xam ne ay shabab lañu jeunesse bi nga xam ne ñoom dañoo am xamaas euh, dañuy am maanaam mooy jeunesse yi nga xam dañuy dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo am euh, maanaam daal lu ma la ko mën a waxee rek ak cawarte maanaam di wane ak njàmbaare daal ni yaa rasulallah Euh, duñ xeex ak ñoom ci ma ci biir Madina wante dañuy xeex ak ñoom ci bitti bala ñoo wax ni dañoo ñëw di xeex ak ñoom ci nañu xeex ak ñoom ci bitti xeex ak ñoom ci bitti duma leen ci bitti maanaam ñoom macha allah ak cawarte euh, la ñu wan lañ bëgg wan yonent bi rek alayhi salaatu wasalaam yonent bi daal di dugg daal di sol mbu mi muy sol muy xeexi mbaxane mi maanaam euh, euh, jumtuwaayu xeexam yépp daal mu sol ko mu ko ci diggante bi mu demee di ko sol nag waa mag yi mag yi lan saar jullit ñi mag di wax ak euh, ndaw yi ni leen yéen yonent bi ngeen waxee nii yonent bi sallallahu alayhi wa wax rasulullah wax ab waxam dig ak digal ngeen ñëw di di ngeen di wax ak moom nii naan ko nañ nañ ak ñoom ci bitti Madina léegi nag euh, ñu ni ah ñun luñ ci xam ñun kat pour xeex rek xanaa euh, léegi ñun nu def nag léegi ñu ni leen bu bu accès wax leen ni yaa Rasulullah dañoo juum nañ nañ xeexe biir Madina mais yonent bi daal di ñëw préparé léppam solo léegi ñoo ko doon ña ko doon wax nañ xeex ak ñoom ci bitti. ni ko yaa rasulallah ah nag ko doon wax nañ xeexal ñu ci bi eh, ci biti eh, bëgg koo delloowaat maanaam daal mel ne luy jéggulu ah, yaa rasulallah ñu ngi jéggulu de ñi ngi jéggulu de nañ xeexal ñoom ci biti nañ xeexal ñoom ci biir maanaam loolu la eh, ñi nga xam ni maanaam jeunesse sabab yi nga xam ni ndaw yi ñi nga xam ñoo ni woon buñ xeex ak ñoom ci biir nañ xeex ak ñoom ci biir tey ñoom ñoo wax yaa rasulallah noo ko bëggee rek nañ xeex ak ñoom ci biir madina yonent bi ñu ko ñu leen déedéet boo doon boo doon sànq waaye comme xas naa sol maa kaana li nabiyin an eh, eh, ida labisa lamatahu an yanzaaha an yanzaaha xatta yuqaatil yellul ci ab yonent mu sol maanaam jumtuwaayu xeexam ba pare di ko summiwaat di leen xaar ci biir ma déedéet comme xas naa solu kay nañ génn ñun ñëpp nañ leen dem nañ leen génn ci biti loolu moo indi dem palaasu Uxud loolu moo indi dem dem palaasu Uxud wante buñ toppoon ndigalu yonent bi ca kuma ci ndigal ndigal lu njëkk la mooy biir Madina la ñuy xeexal ñoom léegi nag ñu gis ni biir Madina kat sax maanaam euh, jeunesse bi jeunesse bi xale yi gis ni biir Madina loolu daal euh, ñëw fekk la sa dëkk di xeex a yow bala gañee lool gàcce loolu lañ doon nekk di ko xalaat wante mujj nañoo euh, del del siwaat seen maanaam rectifier seen wax ji waaye yéen tamit ni ne leen déedéet ba tey li ngeen li ngeen jëkkoon a wax loolu la ñuy def na leen génn ci biti ñu génn ci biti bitti Madina xam nga léegi bitti Madina la ñuy wax ci jamono jooju waaye léegi boo seetloo Uxud ne du bitti ma du bitti Madina maanaam lépp lépp ci biir mantiqatul Madina la bu dee léegi euh, noonee lañ préparé noonee lañ préparé jullit ñi ñoom it dajaloo ba ñuy junni nit maanaam ñoom préparé ba mi junni nit léegi bi ñuy dem ba ca yoon wa abdullahi ibn ubay parce que nafiq yi xam yonent bi li ko li ko mooy nafiq yi àndoon ak moom maanaam ñoom bu ñu ni woon ay yéeféer lañ mu xeexal ak ñoom wante ay naafiq di ànd ak ñoom xoolal dem ba ci digg yoon wa Abdullah ibn Ubay daa di rocceeku rocceeku daa di rocci waale ñetti téeméeri nit ñu dese ñaata ñu dese juróom euh, juróom-ñaar téeméer léegi yow juróom-ñaar téeméeri nit juróom-ñaar téeméeri nit ñoom ñooy jàkkaarloo ñetti junni nit maanaam te li li li ko li ko waral mooy Abdullah ibn Ubay moom moo ni moo dem ba sa digg yoon wa ni ah gaw ma ni xeex am na fa feera fële daal dañuy wax xeex am man daal maa ngi ñibbi maa ngi wàcceeg maa ngi dem ko dem la neexee mu daal dem rocc waale ñetti téeméeri ba mu am ñaari giir yoo xam ne naroon nañoo topp Abdullah ibn Ubay mooy banu banu Zuhra ak banu Salam moo tax yàlla wax ci alquran ne id hamma taifataani minkum an tafshala yàlla dafa ne waaw id hamma ta wa id gadarta laay wax wa id gadarta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqaa'ida lilqitaal wallahu samiun alim id hamma taifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkal almu'minun xam nga Euh, ñaari giir ñaari giir yi nga xam ni ñoom dem nañ bay topp Abdoulaye Abdoulaye ibn Ubay yàlla nee na maanaam yàlla moo leen aar ci ngë ci ci ngëneelu yàlla rek yàllaa leen sauvé moo tax yàlla ni wallahu waliyuhuma maanaam hamma taifataani minkum an tafshara wallahu waliyuhuma wa ala allahi falyatawakkal almuminun léegi ñaari giir yooyu nga xam ne mooy banu euh, xaarisa banu banu zuhra laa waxoon sax banu xaarisa ak banu salama ñoom ñaar euh, ñoo itteewoo woon doon bëgg a topp Abdullah ibn Ubay far yàlla aar leen ñu ñu ñu daal di ñu daal di désister daal di continuer ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ehm, fattaqullaha la moo tax yàlla ni wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha laallakum tashkurun tashkurun id taqulu lil muminina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum boobu mooy yàlla daf ñu dafay maanaam gannaaw uxud la leen di wax xéewal ga mu leen defal ca Badar ndaxte uxud fekk booba ñoom kenn maanaam daal xaw nañoo euh, xam nga euh, booba mm, Uhud ñi ngi mettitlu mettitlu lool mettitlu bu xaw a metti yàlla di leen di leen fàttali badr nag di leen wax wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha laallakum tashkurun iz taqulu lil muminina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salaasati alaafi min al malaikati munzalin xam nga yooyu yëpp badr ndaxte xa ndaxte xut ay malaaka wàcc ñu badr la ñu wàcce balaa in taf loolu lépp yàlla malaaka yooyu yàlla nee na wa ma jaalahu llahu illa bushra lakum wa li tatmainna bihi qulubu qulubukum bi wa ma nasru illa min indillahi al aziz al hakim xam nga loolu lépp xare xare badr la la yàllay nettali wante ci même saar bi ci même saar bi euh, yàlla subhanahu wa taala euh, bi nga xamee ni euh, abdullah ibnu ubay bañ na bañ na maanaam lànk foofu yàlla ñi yàlla ñi yàlla ñi nettali daani waliyaalama almuminin waliyaalama alladina naafaqu wa qila lahum taalaw qatilu fi sabilillah aw idfau qaalu law naalamu qitaalan lattaba'naakum law naalamu qitaalan ay law naalamu anna hunaaka qitaalan maanaam ñoom bi Abdullah ibn Ubay bi muy rocceeku ak ñam àndal ñu naa leen taalaw qaatilu fi sabilillah ñëw leen ngeen xeex ci yoonu yàlla wala ngeen défendre sax bu fekkee mu leen a song ngeen défendre aw idfau qaalu law naalamu qitaal buñ xamoon ne foofu xeex am na xeex amu fa eh bu xeex amul kay daañ ànd ak yéen yàlla daal leen di tontu yàlla daal ni hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman maanaam ñii bu leen leen topp ñii bàyyi leen ñoom jamono ju jamono joojee kéeféer ak kéeféer lañ ko mën a jege fuuf ak ngëm yàlla kon gis la koo xam ne dafay nëbb nëbb ak kéeféer di génne ak njul yow kéeféer nga gën a jege kon yow am naa feex hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman yaquluuna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wallahu aalamu bima yaktumun nga xam ni kon ñoom euh, loolu mooy li nga xam ni moom lañ njëkk a def ci wàllu euh, maanaam réaction naafiq yi léegi kon ñoom rek ñoo dem dem boobu ñu dem sax nga xam ni euh, bu xam nga bu fe xare uxur bu amuloon kon kon naafiq yi duñu leen xàmmee nii maanaam duñ gis naa feq yi duñu duñ leen xàmme ñu leer nañ ndax dem nañoo dema dema dem ba naafiq bu buñ gisee naafiq xam ni kii am naafiq am na ñoo xam nag ay naafiq lañ yonent wax ko nit ñi wax waxu leen wax ko lulul ku dul xëy na xudayfa waaye am na ñoo xam ne leer nañ ku si mel Ablaay Abdullah ibn Ubay ak ñam àndaloon nga xam ne ñoom ñoo rocceeku biñ ñëwee ba ci Euh, palaasu maanaam xeex bi nag léegi nag ñële yéeféer nga xam ne ñoom euh, dafa nekk qiyaadat abi sufyaan abu sufyaan moom moo ko jiite abu sufyaan nag maanaam euh, comme li ma wax xam nga abu sufyaan moo fa nekk moo fa moo fa maanaam moo fa gën a kilifa moo fa moo fa mag moo fay njiit moo fay kilifa ga moo tax Safwaan ibnu Umayya eh, ak Abdullah ibnu Rabia Ikrima ibnu Abi Jahal ñoom dañoo ñëw ci Abi Sufyaan ñu ko nag léegi fokk nga jox ñu nangam ci xaalis boo ko defee ñu préparé ci xeex bi Abu Sufyaan jox leen la nga xam ni moom la ñu jële woon ca eh, maanaam bénéfice eh, la ñu jële Sham bénéfice loolu war naa toll ci juróom fukki junniy dinaar loolu Abu Sufyan daal lañ koy jox ñu préparé ci euh, seen xeex loolu nag Abu Sufyan daal di ubbi buntub ku bëgg a ku bëgg a ak ñun ci xeex bi na ñëw euh, ahbaas yeeg waa kinaana ak banu banu kinaana banu euh, tihaama ak ñeneen ak ñeneen bari nañ ba ba nekk maanaam ñetti junni nit ci pour xeex ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ak julli ñim àndal préparation yi féeri Abu Sufyaan dafa jël Xaalid bin Walid euh, def ko ci nga xam def ko mu jiite xeexkat yi nga xam ni boobaa mooy qaaidu alfursaan Xaalid nag Ikrima moo ñëw di ko euh, mooy assistant ci loolu comme Xaalid ak Ikrima ñoo jiite xeexkat yi Abu Sufyan jiite idaarat euh, al maydan al kufri euh, Abu Sufyan moom mooy kii supervise bul fàtte nit ñi seen ay pàppa la la ñoo naan an ñoo ñoo naan ànd Abu Sufyan moo tax Xaalid ibn Walid bi mu tuubee ba pare euh, ñu laaj lu tax nga nga nga nga nga yéex a tuub bokk na ci daal ñun ko maanaam suñ ay mag suñ ay baay ñooñ daan jiite rek daawuñ daawuñ am xalaat ba mbir yi ñëwee ba ak ci ñun nag ñu xam ne nag lii mooy dëgg yi xam nañ dëgg ñu topp ko léegi nag kon léegi Abu Sufyaan ba léegi moo moo maanaam ñii dañoo am ñu leen mag Xaalid ibn Walid Ikrima ibn Abi ñaar ñii ñooy ñoo ñoo dàq xeex ci Quraysh am na am na ñeneen ñoo xam ni maanaam ci biir Quraysh ñaar ñii ñoo ci dàq am na ibnu Qamiya dina ñëw ci wàllu euh, moom euh, moom it ak njàmbaare parce bu ma nee jàm njàmbaare ci yéeféeri laay wax ibnu Qamiya euh, ku bon la léegi nag Abu Sufyaan jël li nga xam moom mooy drapeau bi jox ko bani Abdiddar bani Abdiddar nag ñoom it seenu waaye ak seen mën a xeex ak seenu njàmbaare moo tax ñu jël drapeau bi jox leen loolu mooy li nga xam ne moo aju ci euh, yéefee léegi euh, bu ñu ci jullit ñi jullit yi bi ñuy préparé abbas euh, abou sufyan dafa sàkku ci ñoom abou sufyan dafa sàkku ci abbas xam nga abbas dafa tuub ba pare bi bi mu tuubee xam nga ci xare ba la tuub waaye wante waxul ni tuub na dafa tuub ba pare dellu màkka nekk màkka bi mu nekkee màkk waxul julli yéeféer yi ñoom Abu Sufyaan waxul yooyu ni kii tuub na wala dara dafa ñëw leen di pat léegi nag xare Uhud Abu Sufyaan sàkku ci Abbas pour mu ànd ak moom ñu def xeex ñu def xeex ak jullit ñi Abbas daal di lànk daal di bañ après Abbas nag euh, fexe ba maanaam Euh, ndaxte moom daal fexe ne ba am am na lu mu wax yonente bi alayhi salaam euh, ci euh, bi ñuy préparé xeex bi ñu dajee wax maanaam wax na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li koy xaar ci préparation ci Quraysh maanaam daal Quraysh ña ngay préparé seen préparé seen pré maanaam daal seen danger lépp luy danger ci Quraysh rek abbas mi ngi koy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ni ko man de man de gis naa loo xam daal xéewal gis naa euh, mooy li ma wax sànq raaytu baqaratan gis naa euh, nag woo xam ne ñu koy rendi te sama jaas gi nga xam yi moo nekkoon ci man dafa am maanaam jaas ci bopp ñawatul dafa xomaat gu ci nekk maanaam lu mel la xomaat la daal ba pare tamit gis naa ni dugg naa ci benn maanaam sama loxo dugal naa ko ci benn comme benn kaaraay loo xam lu lu aaru loolu nag jàpp naa ni Madina la nag bi nga xam ni moom la ñu rey jàpp naa ni kooku ay nit la sama saxaaba jaas ji loolu dama ko firee ku bokk ci man ki bokk ki bokk ci moom mooy Hamza nag bi ñu rey mooy saxaaba yi ñu rey ci Uhud rey nañ ci juróom-ñaar fukki saxaaba euh, ak Madina Madina bi ndaxte saxaaba yi diñ leen euh, am na ñoo xam ne ñoo daw dem Madina am na ñoo xam ne ñoo daw euh, maanaam taxawaat léegi nag boo gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni nañ ko nañ ko dem nañ ko defe ci biir Madina kon bu boobaa daw gii du am ndax ñoom ñoo leen di gën a xam place ñoo leen gën a xam ñoo leen gën a xam fan la ñuy def maanaam nan la ñuy def ba ba gañee fee wante nag euh, yeneen bi wax sallallahu alayhi gone ya fa nekkoon maanaam shabaab ya gone ya ndaw ya daal di daal di gis ni déedéet wuuteeg yeneen bi ci gis-gis ay ay ay ndaw rek xam nekkuñ mag mag magi saxaaba mujj nañ cee mujj nañ ko tuub wante yent bi déedéet li ngeen xas wax rek nan dem loolu kon euh, léegi nag jullit ñi loolu mooy seen mooy seen wàllu mooy mooy bi nga xamee ni ñu ngi préparé ci préparation euh, jullit ñi euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñoo xam ci wàllan saar ñu ñëw di ko gaabe si ku ci mel ne Saad ibn Muaz ak Saad ibnu Ubaada ak Usayd ibnu Xudayr ak maanaam euh, ñeneen ñoo xam ni dañoo maanaam pour aar yonent bi sallallahu alayhi wa mu am yeneeni saxaaba yoo xam dañoo bunt yi nga xam mooy buntu Madina yi dañoo foofa dañ faa taxaw di ko aar ak yi nga xam ne mën nañ place yi nga xam ne mën nañ koo jéggi ñëw ci Madina yooyu yëpp dañoo taxaw di ko xaar Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu tëral pour euh, xeex ak euh, yéeféer yi mooy ni dafa jël madina teg ko ci kanamam maanaam yonent bi dafa teg madina ci kanamam jabalu uxud nekk ci gannaawam kon yonent bi léegi dafa nekk ci gën ci ci diggante madina ak jabalu uxud ba pare nag mu am fu ñuy tudd lu ñuy tuddee jabalu rumaat jabalu rumaat maanaam mooy lan mooy aw montagne la boo xam ni ñi doon sànni fet la ci yonent bi teg war nañoo mag euh, juróom fukki nit maanaam stratégie bu bu bu baax la foo xam ne ku fa taxaw rek daanaka yaay gañe kenn du la mën a ñëwal fenn kenn du la mën a féete gannaaw kenn du la mën a féete kanam parce que fi nga nekk la kenn du fa mën a agsi xam nga jabalu Uhud te mënu ko yéeg lépp jabalu Uhud bi rek pour nga yéeg nii rek yéeg bi pour yéeg ci kaw rek ñetti kilomètres bu dee guddaay bi euh, vingt cinq kilomètres xam nga loolu kon mënu ko wante jabalu ruma jabalu ruma maanaam euh, montagne bi nga xam ne moo ne ci wetu mont maanaam ci kanamu jabal moo ne ci maanaam boo boo fa nekk jabal sa sa gannaaw lay nekk yonent bi teg fa juróom fukki nit ñoo xam ñu ñooñu fu ñu nekk stratégie la boo xam ne ku fa nekk daanaka yaay gañe yonent bi teg fa daa daal di jiital ci ñoom euh, Abdullah ibn Jubair al Ansari yonent bi li leen nag bu ngeen gisoon maanaam law raaytumu tayr tataxattafuna laa tanzilu abadan min hada aljabal bu leen mës a bu ñu gañeeg bu ñu gañewul ak même buñ ñu doon rey ba ay picc ñëw di caxat-caxate suñu yaram di ñu fëkk di yóbbu bu leen wàcc bu kenn wàcc xam nga lii ku la ko wax nag bu kenn wàcc loolu dong laa leen yéen daal nekk leen di sànni ay fet te bu leen mës ak lu mën a am nag léegi Quraysh ñoom seen euh, préparation da cee am koo xam ni benn ku jigéen koo xam ni hind te mooy hind bint utba boobu nag tuubagul hind nag yàlla dafa am lu mu ko mayoon kooku xool nañ ko ca ba ñuy wax ci wàllu hind yàlla da koo may dafa mën a encourager soldaar yi dafa mën a encourager ay nit lool lool lu nit ragal ragal ragal lu nit tayal tayal bu hind taxawee sa kaw encourager la jàjj la nga jóg dem ci la waxe ab yaatam yu siiw yooyu daani naxnu banaati taariq namshi ala annamaariq in tuqbilu nucaaniq aw tudbiru nufaariq firaaqu firaaqa gayri waabiq léegi nag mu daal di jajj ba nu bani abdiddar yaa ngi dégg daani wayha bani abdiddar ويها حماة الأديار ضربا بكل بتار xam nga bani abdiddaar banu abdiddaar xare Uhud ci yéefee ñoo yor xare bi daanaka daal parce que ñoo yor drapeau bi te dañoo te dañ leen a xam ci wàllu xeex banu abdi bani abdiddaar loolu Hind bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jàjj Quraysh lool sax lool loolu nag daal daal di yokk seen maanawiya maanaam seen moral yokk leen moral yokk leen lépp léegi kon xeex bi commencé na xeex bi commencé na Hamza mi nga Hamza moom mooy moom moo jiite maanaam yonent bi alayhi salaam moom mooy supervisé moo jiite lépp nga xam ni moom mooy Euh, euh, général bi Hamza moo jiite xee ñii xeex amaliyaat bi amaliyaatu xeex bi Hamza ko jiite maanaam moo naan sànni leen bu leen sànni gum xaar leen yooyu loolu Hamza ko yor Hamza ci boppam nag ak ñeneen ñu dul Hamza lépp nag yonent bi alayhi salaam moom moom mooy kii joxe euh, ordre yi ñu commencé xeex xeex bi neex lool ci jullit ñi ñu commencé xeex xeex bi neex jullit ñi rey di rey di rey di rey ali ma ngay rey omara ngay rey zubayra ngay rey talxa ngay rey ña ngay ba yàgg rek yéeféer yi daal ni di daw waaye xam nga ñetti junni nit am nañ am na ñoo xam taxaw na banu abdi daar banu abdiddaar kuñ ci rey keneen jël maanaam drapeau bi daal du laal suuf banu abdiddaar te kii laal kii jël drapeau banu abdiddaar rek banu abdiddaar moom wax dëgg yàlla dañoo dimbali waa Quraysh lool kuñ ci ku ci dee rek keneen ku bokk ci ab bani abdiddaar mu ñu jël drapeau bi ñu fekk la fa rayaat la keneen ñëw jël keneen daal di keneen ci bani abdiddaar jëlaat ñu fekkaat ko fa noonu lañ def ba mujj nag yéeféer yi nag jullit ñi gañe nañ leen gañagu gañagu leen nañ lu tax nan nan la ñu xamee loolu mooy dañoo commencé daw dañoo commencé daw anas nee na ba ma gis jigéen ñi wak seen seen seen seen seen seen seen seen yi wak seen seen yi di waqat di daw léegi nag foofa nag ña nekkoon ca kaw doon fet doon sànni daal ni kon kon xeex bi jeex na kay mën na mën nañoo wàcc Abdullah ibnu Jubayr ni leen ah da a fàtte la ñuy wax yonent ci boxoon ne woon na bu ngeen gisoon ay picc di ñuy jël di yóbbu bu leen bu même bu ñu gañee bu kenn wàcc ñun ñu ñun ñu ne xeex amatu fi léegi nag Quraysh lépp luñ indi woon ci wàllu alal xam nga ñetti junni nit indi seen alal yëpp ñu bàyyi ko di daw di dem waaye nag boo seetloo Xaalid ibnul Walid ak Ikriyo ñoom bokkaguñu ci xeex ba léegi dañoo muus ñoom ñi ngi xool fan la ñuy jaar jullit yi parce que ñi ne ci kaw daju ñi ngi ci kaw daju ci kaw montagne bi ñi ci kaw montagne bi Xaalid lii moo ko jaaxal nan lay def ba ñi ci kaw montagne bi wàcc ndaxte mënuñoo jege fenn Xaalid kon moo tax Xaalid dafa sori dafa Xaalid Xaalid moom ak ñi mu jiite dañoo dañoo beru ak Ikrima Ikrima doomu Abi Jahl yaa ngi dégg léegi ñoo ngi daal di wàcc ab la maanaam juróom fukk lañu woon ñeent fukk yëpp wàcc wàcc ba mu des dix nit ñoo des a mi Jubayr leen bu leen wàcc ñoom ñu daal di wàcc daal di mooy ndigalu yonent bi ah mooy leen ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé dem ca ca ca ca ca ma bagage yee fee waaw kay nag Xaalid daal ni lii laa doon xaar Xaalid daal ñëw fekk leen fa xaalid ak ak ikrima fekk leen fa ak ñu àndal xaalid taxaw fañ taxaw daal di taxaw ca euh, jabalu rumaat maanaam doj waa nga xam ni ku fa euh, montagne ba nga xam ku fa ku fa ku fa nekk moom kenn du la mën a gañe xaalid fa la fa ñëw taxaw ña ña fa nekkoon rey na leen fett nañ leen xeex na ñoom ñi nekkoon di jël bagage yéeféer dañoo jëkk bu yàgg rek gis ay jaaseeg ay ak ay xeej ak ay fet di taw seen kaw bi qiyaadati xaalid xaalid a jiite loolu ak ikrima xaalid ak ikrima ñaar ñuy bis bu nekk ñooy ñooy danger ci Quraysh maanaam yéeféeri jamono jooju tuubaguñ ñooy ñooy danger yéeféeri moo tax jullit ñi échec bu ñu am rek te rob xaalid ak ikrima ñoo leen ko teg moo tax xaalid ndeysaan xaalid walid nee na nee na fu ma jooyee rek damaa fàttali fu ma fàttali ko uxut jooy fu ma fàttali ko jooy ndax def uxut dafa li mu dafa dafa ñaaw lool nag xaa ñu commencé rey rey nañ ci juróom ñaar fukk ci ay jullit te ñoo ñëpp ke waruñ ci maanaam naruñ ci woon a kenn léegi nag euh, yonent bi gis na ni mooy nañu ndigalam mooy nañu ndigalam nit ñi pëccaxoo bi ji commencé na yéeféer yi song nañu yée jullit ñi ba jullit ñi ñu bari commencé daw ñu bari daw Ousmane bin Affan dafa dawaale moo tax yàlla ni inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'an ñooñu innama stazallahum alcheytaanu bi baadi ma kasabu wa laqad afa allahu anhum inna allaha gafurun halim wante boo seet wante ci suurat ci laata ngay agsi foofu yàlla bi muy bi bi muy bi muy nettali bi muy waxta bi muy wax ak jullit yi après xeex bi mu mel ne jullit ñi euh, ndaxte xeex bi yàlla daf leen a digoon euh, dana leen dimbali dana leen dimbali ba bañ gañe léegi mu mel ne jullit ñi maanaam daal dañoo xalaat loolu yàlla ni leen wa laqad sadaqakum allahu wa'dahu id taxussuunahum bi idnihi xatta ida fashiltum maanaam yàlla lam leen waxoon dëggal na ko mooy lan gañe ngeen id taxussuunahum id taxussuunahum alxassu mooy mooy rey bu bare bare yàlla niwul id taqtuluunahum de dafa ni id taxussuunahum ba ngeen leen topp di rey di ci rey di rey rek di rey rey yu bare bare bare ngeen di rey Hamza ngi rey Ali ngi rey Talha ngi rey Zubayr ngi Zubayr ngi rey Saad bin Abi Waqaas ngi rey id taxussunahum bi iznihi lépp nag ci ndigal yàlla la amee waaye xatta ida fashiltum ba ngeen essa nag wa tanazatum fi l amri ngeen xëccoo ci mbiri mooy lan mooy ñii nee nañ Abdullah ibnul Juwayni bu leen bu leen bu leen bu leen dem toog leen yeneen bi ñëwoon nañ bu mu dem ñeneen ñi daal ni xeex bi jeex na kon nag dañuy dañuy jël dañuy dañuy jël dañuy jël bagage yi xeex bi jeex na dañuy wàcc ñooñu nag euh, yàlla nee na ndaxte ñooñu euh, moo tax gis nga xëy na xëy na dina ñëw ci bu ñuy wax ci euh, nataa'iju xeex bi ak tamit durus waa ibar yi nga xam ne mën nañ koo jëlee nañ ko ci xeexu Uhud bokk na ci yërmande yàlla ci saxaaba yi ndax xoola saxa mooy gi ñu moy maanaam mooy gi ñu moy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ni dañoo yayoo woon mbugalu àdduna ak àllaaxira foofa nag borom xam-xam nee nañ mooy la tudd mooy loolu mooy la tudd ndax yonent ne bul wàcc nga wàcc wante ñoom dañoo tawil mooy maam dañoo yaakaaroon ni dañoo amoon yaakaar bu ñu dañ koo teg ci ak yaakaar ak njort ne xeex bi jeex na ndekete xeex bi jeexul Xaalid ibn Walid ak Ikrimat ibn Abi Jahl ña nga ca seen gannaaw di leen xaar bi ñu wàccee rek ñëw nañ ci ñoom ci montagne euh, euh, euh, da da daa di daa di occupé foofu commencé di songu songu jullit ñi di ci rey lu bare bare bare bare moo tax yàlla hatta ida fashiltum wa tanaza'tum fi l wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibbun wa asaytum ngeen moy lu ngeen moy ndigalu yonent bi kañ min baadi ma araakum ma tuhibbun gannaaw ba leen yàlla wane li nga xam ni moom ngeen bëgg mooy àllu àddina minkum man yuridu dunya te mooy ñi nga xam ne ñoo wàccoon dem dem ca bagage wa minkum man yuridul axira am na ci ci ñoo xam ni ñoom àllaaxi ñoom àllaaxira lañ bëgg mooy ña nga xam ne ñoo saxoon te doj te mooy Abdullah ibn Jubair ak euh, tuuti nit ñi mu àndaloon yàlla nee na nag ba ngeen wàccee nag doj ya ba Xaalid songu leen ak aw ak ay soldaaram summa sarafakum anhum summa sarafakum anhum yàlla daal leen di dévier walif ñoom maanaam maanaam yàlla dogal ni yéen mënatu leen leen a mënu mënatu leen ñoom dara amatu du ngeen amatu ñoom accès ba ngeen ñàkk am accès ci yé ci yéefee ci rey kenn lu tax ko ma anhum yàlla moo leen moo leen dévier ba amatu leen benn kàttan pour pour pour pour pour euh, gañe gañe kenn ci yéefee loolu nag yàlla da koo def li yebtaliyakum yàlla da ko def ngir nattu leen walla wala moo tax yàlla ci teg walla xad afa ankum moo tax saxaaba yi kuy ñëw di di di di di di di paandu saxaab yi di parce que da ngay naa la da ñoom ñoom ñoom mooy ndigal yonent bi ndax ba am na ci ñoo xam ne mooy ba ñu nekkee ca montagne bi dañoo wàcc dañoo wàcc yàlla baal ne leen ci même aaya bi yàlla ne wala qad afa ankum léegi loo loo bëgg yàlla baal na leen waaye baal gi teewul wàcc gi ñu wàcc noonu dana am lum leen kute baal na leen mooy du leen buggal alaxira du leen ci bindal bàkkaar wante dana leen kute feer tuuti dana am loo xam ni loolu dinañ ko fay tuuti njëg googu dañ ko fay mooy lan mooy ba ñuy dem ba ñuy daw yàlla ni id tusiduna is tus'iduuna keroog ba ngeen di wax ba ngeen ni waqit di daw di yéeg ci montagne di dugg ci xur yi ñii dugg ci ruq yi nii di daw ah te ba ngeen di daw wala talwuuna te gëstuwuleen ala ahad wala talwuuna ala ahadin gëstuwuleen kenn war rasulu yad'ukum fi uxraakum yonent bi di leen woo di leen wax ilayya ibadallah ñëw leen ñëw leen di leen woo pour ngeen ñëw ci ci beneen kuréel bi te mooy kuréel bi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo résisté yonent bëgg ngeen ñëw ci yëg kenn euh, gëstu léegi nag fa asaaba xam man bi xam fa asaabakum daw da ngeen dawee nag fa asaabakum mu dal leen xamman bi xam maanaam mu mu mu ay fa jazaakum laay wax fa asaabakum yàlla faye leen mooy goog ngeen moye woon ndigal yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa asaabakum yàlla faye leen xam bi xammin fa asaabakum xamman bi xammin maanaam yàlla fay leen njàqare ci kaw njàqare baa googu nekk ci bi xammin bi maana ala xammin araf yi léeg-léeg dañuy remplacente léegi baa dañoo nekk ci maanaam bi maanaam ala léeg-léeg euh, day nekk euh, dañoo ci nekk bi maanaam fii fii dañoo ñëw nekk ci bi maanaam ala fa asaabakum xamman bi xammin yàlla faye leen njàqare ci njàqare léegi nag njàqare ci njàqare boobu mooy lan ñaari njàqare yooyu mooy ban njàqare xamman bi xammin li kay laa taxsanu xam nga loolu mooy iskaal bi njàqare ci kaw njàqare ngir ngeen bañ a jàq loolu moom mooy lan ndax liñ xam mooy nit ki bu nekkee ci njàqare nga teg ko ci geneenu njàqare day am day am ak jàq day am xusnu wante yàlla dafa ni njàqare ci njàqare ngir ngeen bañ a am xusnu léegi aaya boobu noo koy firee euh, maa ngi ñëw léegi maanaam nañ may dix minutes rek bu ko defee ma chargé téléphone bi batterie bi dafay bëgg euh, dafay déchargé nii mais dix minutes incha allah ñu ñëwaat bi iznillahi taala asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mën nañoo continue euh, ci suñu euh, maanaam qissat gazwat euh, Uhud maanaam ñi ngi ci bi nga xamee ni jullit ñi ñu nekkoon ci kaw montagne Euh, sànnikaay bi te yonent bi ni woon leen bu leen wàcc euh, ñu mooy ndigal yonent bi wàcc euh, ñooñu yàlla di leen wax ni id tusiduuna wala talwuuna ala ahad warrasulu yadcuukum fi uxraakum fa asaabakum xamman bi xammin mani xamman bi xammin yàlla def leen a fayee loolee nga xam ni def nañ ko ci wàllu mooy ndigal yonent bi yàlla fayaleen fayaleen njàqare ci njàqare njàqare ci kaw njàqare njàqare bu njëkk bi mooy euh, maanaam jaasi yéeféer yi nga xam mi ngi dal seen kaw ak fett yeeg xeej yi loolu leem nañ beneen njàqare bi mooy dañoo jëkk ba yàgg rek euh, ñu daal di am lu ñu siiwal ñu ni yonent bi génn àddina kan moo siiwal loolu Utba ibnu Abi Waqaas moom fexe na ba ak si yonent bi alayhi salaam mbaxane mi yonent bi soloon mbaxane weñ boobu fexe na ba dóor ko ba mbaxane mi ba ba ba ba fexe na ba dóor ko jaasi loola daal di tas yàqu jàll ci bopp yonent bi alayhi salaatu wasalaam boppam bu tedd boobu abdullah ibni shihab az-zuhri al-qurashi moom it fexe na ba am lu mu dagg ci jëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibnu qa ibnu qamia ibnu qamia fexe na ba moom it toj eh, bakkanu yonent bi alayhi assalatu wassalam foofu nag Abu Dujaana daa di gis loolu mënu koo muñ mu ñëw ba ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam sànneeku ci kawam ndaxte ñoom ñëpp liñ bëggoon rek mooy ñoom euh, euh, maanaam nañu liñ bëggoon rek mooy Yonent bi alayhi wasalaam moom nañ ko rey Abu Dujaana ñëw daa di góor ci kaw ci kaw Yonent bi ñu sànni ko xeeji dal ci kawam xeej yi di dal ci kawam ñu koy sànni di ko sànni di ko sànni di ko sànni di ko sànni ak yeneeni xeexkat yoo xam ni dañoo ñëw ngir ngir ngir ngir sowe yonent bi bokk na ci Mus'ab ibnu Umayr ak Ziyaad ibnu Sakan ak juróomi euh, lan waa Lansaar waaye ñoom ñëpp la ñu rey Abdullah ibnu Qami'a moom daa fekk Mus'ab ibnu Umayr rey ko rey bu metti dóor ko rey ko ba daggu loxo yi ba rey ko dafa jàpp ni yonent bi bi bi mu rey nag mu yaakaar ne ki mu rey mooy yonent bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa mu daal mu daal wax ni ray naa ma qataltu muhammadan qatal muhammad baatu qatal muhammad boobu yuuxu boobu mu yuuxu ci li ñi daal ni qataltu muhammad moo moo moo maanaam moo fai maanaam moo faible moo faible doole jullit ñi faiblesse bu metti ci doole jullit ñi euh, yooxu bi Abdullah ibnu Qabi'a yooxu moo moo ko waral dafa yooxu rek xam nga moo tax moo tax yàlla ne xam man bi xam nañ parce que xam nga njàqale njàqare gu njëkk gi mooy dal gi ñu dal seen kaw gaañu gaañu gaañu gaañu ñu ci am mais beneen bi mooy ñu ni yonent bi génn àddina loolu mooy lu kenn mënta muñ muy beneen njàqare gu metti beneen njàqare gu metti metti nga xam ni fekk boobu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Talha ak euh, maanaam Talha ibn Ubaydillah ak Zubayr ibn Awwam ñoom ñu ngi koy yëkkati mu jëm di di di ko yóbbu ci ci montagne bi pour pour jëm ko rawale moo tax am na riwaay bu ñu jëlee ci Zubayr Zubayr ibn al-Awwam nee na til inna inna tilka sarxata kaanat aamilan muhimman fi hazimati almuslimin lu tax maanaam yuuxu googu ibnu qami ay yuuxu daan ne rey naa Muhammad rey naa rey naa Muhammad googu bokk na ci cause yi gën a am doole am doole ci ci gañe gi gañe gañe gi gañe jullit ñi ndaxte parce que loolu rey naa Muhammad nekkul mbir mbir mu ndaw léegi nag yàlla dafa ni fa asaabakum xamman bi xammin li kay laa taxzanu ala ma faatakum wala ma asaabakum aaya boobu lu muy firi maanaam aaya boobu mooy lan aaya boobu muy firi mooy fa asaabakum xamman bi xammin yàlla yéen maanaam mooy ga ngeen mooy daal di wàcc bàyyi fa ndigal yonent bi yàlla faye na leen njàqare ci kaw njàqare loolu mooy lan njàqare bu njëkk bi mooy jaas yi daf seen kaw gaañu gaañu yi ngeen ci am beneen njàqare bi mooy siiwal giñ siiwal li yonent bi ree nañ ko boobu sax moo gën a métti li kay laa taxzanu ala faatakum ngir ngeen bañ a jàq calu calawe la la leen la leen faat mooy lan mooy bagage yéeféer yi moom dem dem na moom ñàkk ngeen ko wala ma asaabakum ngeen ba a jàq tamit ca la nga xam ne moo leen dal ci ay gaañu gaañu léegi loolu nan nga koy maanaam nan ngay quali loolu li koy laa xamman bi xam ne loolu noo koy booleeg xamman bi xam ne mooy maanaam ma jox ma jox leen ko ci misaalu ci àddina jëflante àddina bu fekkoonte ne dañoo jékk ba yàgg rek benn waay ñu ni ko benn waay euh, euh, nekk ci marché bi par exemple am ku ñëw ni ko yow de sa kër gaa ngay lakk sa kër ga ma ngay tàkk nag jëpp fépp a ngay lakk nag fépp fépp a ngay lakk sa bagage ak lépp a ngay lakk xam nga loolu njàqare la njàqare bu metti mu génn marché bi jëm këram ngir liñ ko wax ni ko sa kër sa kër gaa ngay lakk sa kër gaa ngay lakk moom duñ ko wax kenn muy toog fa muy mu ñëw ba ci yoon wi ñu ni ko yow ndekee kër ga de sa papa nga ca woon ak sa yaay ak say doom ak sa soxna ñëpp a ngoon ci biir kër ga kon am na beneen njàqare bu tegu ca bu njëkk ba mooy lan mooy kër gay lakk loolu loolu njàqare la ñu fekk la fa ne la kër gi sax day sa papa ak sa yaay ak sa njaboot ak sa ñëpp ña woon ci biir kër gi te kër gaa ngi lakk fu ne kenn mënut a dugg ba sowee leen yow ngay ñëw ban jàqare ngay am léegi bi nga ñëwee bay agsi ci biir kër gi sa benn xarit gàttandu la ne la sa papa ak sa yaay ak say doom ak ñëpp ngi sama kër maa leen jëloon sauvé naa leen avant lakk gi di commencé sax laa xam ni lakk ba lakk ngaa ba muy commencé laa leen jël ñoom ñëpp indi leen sama kër ñu ngi ci jàmm amul amul moom moom dara jot leen alhamdulilah bu boobaa yow nooy def kon yow da ngay sa kër gi la gi ci nekk lu mu metti mett da ko fàtte loolu mooy li kay laa tahzanu ala ma faatakum mooy lan jullit ñi dañoo am jàqare mooy mooy mooy mooy jaas yaa ngi dal seen kaw ak xeejee fett yi ñu jëkk ba yàgg ni leen yonent bi rey nañ ko ñu ñoom ñëpp ñu daal di jàmbaar amatul foofu nja ak njàmbaare amatu fi ak njàmbaare amatul foofu fépp léegi nag foofa yàlla euh, li kay laa tax sunu ala ma faatakum wala ma asaabakum léegi ñu jëkk ba ak ñu ni déedéet xam nga ba ñu ne rey nañu kon fàtte nañu fàtte nañu njàqare bu njëkk ga nañ la fàtte nañ tamit fàtte nañ tamit ci biñ leen ne yent bi rey nañ ko fàtte nañu bagage yéeféer yi yi nga xam ni ñàkk nañ ko ñoom leen gën a maanaam seen problème mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam far ñun leen ñu mujj xamaat ni yonent bi rey ñu ko léegi nag ñu fàtte lépp kon léegi ñu fàtte bu lu njëkk la ak ak lii moo tax yàlla ni kay laa tax sanu ala ma faataku ala ma faatakum mooy bagage yéeféeri wala ma asaabakum ak gaañu gaañ yi leen dal ngeen fàtte ko loolu nag bu dul woon ak jàqare bii kon kon kon mën ngeen a dem ba Madina mën ngeen a dem ba Madina sincel dem ci bagage yéeféeri waaye comme yeneen yenente bi ñu waxoon rey nañ ko ngeen jéem jékk bi ak ñun di dund reyuñu koy loolu yéen fàtte ngeen bépp natt bu ngeen ma a am loolu mooy li kay laa taxzanu ala ma faatakum wala ma asaabakum wallahu xabirun bi ma taamaluun léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, mu am ñoo xam ni léegi na nañ ñëw ci Hamza tuuti Hamza fekk rayoon na Utba ibnu Rabia ak Walid ibnu euh, Utba ak Hamza yaakaar na maanaam daal papa yi Hind ak rakk papa yi Hind ak doomu Hind wante wante rayoon na euh, al Mut'im ibn Adi rayoon na al Mut'im ibn Adi Jubayr ibn ibn Mut'im daa di Wahshi Wahshi nga xam moo rey Hamza jaamu Jubayr Jubayr ibn Mut'im da ngay dégg ñu ne Wahshi Hind daf ko loolu moo moom lañ génnee ci film yi ñu ni maanaam hind di waxak ak euh, wax ci hind yoonam ñëwul ci wàllu moom amul benn relation ak wax ci wax ci du woon jaamam jaamu keneen la woon kooku nañ nañ na leer nañ léegi nag hind euh, damaa jum jubayr jubayr ibn mutim jubayr di wax wax ci ko boo rayee xam nga daa di nga daa gore ba ngaa bëgg gore rayal xam nga daa gore léegi wax sii moom bi mu ñëwee ci xeex bi mu wax si moo ko doon nettal nee na man sama yoon newul ci xeex sama yoon newul ci ab yéefe wala ab jullit man li dafa am benn mission bu may dox si te te damaa bëgg a nekk gor mooy ñëw rey xam nekk gor kese wax si nag yàlla koo may muy ku mën a sànni yàlla ko may muy ku mën a sànni sànnikat la bu mag léegi nag moom ci biir xeex bi Hamza a ngi dóor di di di moom fu Hamza nekk rek mu mu mu xaw koo jege topp Hamza rek topp ko topp koo xeej bi di natt di natt di natt di nat di natt jël temps nag yaa ngi dégg ba mu demee gisam xeej bi ba Hamza jàkkaarloog moom mu gis Hamza nga xam ni léegi moom dem na ba gis ni lii moom am na fum ko def rek mu dal koy sànni mu sànni ko mu dal ko ci mu dugg ci maanaam ci bàqu xamse la dugg jàll ba ci diggante ñaar ñaari euh, ñaari tànk maanaam du bu méttee méttee méttee méttee lu métti Hamza moom ca la daan génn daan génn àddina wax si nee na wax si nee na may toog di xaar ba mu seddu guy ma daal di rocc sama xet daal dem sama yoon dem fa dem ci palaasu palaasu yéeféere man pare naa ci man man gore laa bëggoon jeex na moo tax booba la gore léegi anas ibnu nabar fekkewul fekkewul woon xeex bi anas ibnu nabar fekkewul woon xeex euh, bala maa ñëw sax ci gannaaw bi nga xamee ni yàlla Euh, teg na jullit ñi leen teg ci wàllu euh, axam man bi xam ne wante wante na ñëw ci Anas ibn Nadur Anas ibn Nadur dafa am lu mu maanaam moom fekkewuloon Badr Anas ibn Nadur fekkewul Badr euh, daal ni yàlla booma bu fekkente ni maanaam boo ma mayee ma fekkewaat ma fekkee ab xeex ànd ak yonent bi da gis maanaam moom moo ko doon wax sax maanaam daal daal bis bu ma yàlla mayatee ma fekkee xeex ànd ak yonent bi di xeex yàlla dana gis li may def léegi nag commencement xeexu Uhud Anas ibnu Nadr fekkewu ko woon dafa tukki woon waaye bi mu ñëwee lan dégg lan dégg xeex bi nag dégg tamit jullit ñi euh, rey mi leen rey gañe gi leen gañe ñenn ñi daw nañ ñenn ñi euh, euh, rey na leen anas nag lam waxoon dafa am lu mu déggantoog yàlla anas tey la koy la ko bëgg tey la ko bëgg a def anas daal di jóg bàyyi lam doon def lépp jël jaaseem daal ni ga daal xale daal ay gaayam nañ leen dem nañ leen dem xeex ba maanaam anas bi mu ñëwee di dugg ci yéefee anas dafa ni allahumma inni actadiru ilayka mimma sana haula maanaam euh, mu jublu ci mu jublu ci lan mu jublu ci jullit ñi mooy lan maanaam yàlla maa ngi lay jéggulu ci jullit ñi lee def mooy lañu ñu mooy ndigal yonent bi alayhi salaam lee nga xam ni moom la euh, ndaxte euh, maanaam Euh, euh, yonent bi am fu leen teg fii bu leen fi jóge ñu wàcc wàcc googu ñu wàcc ba am la leen fay loolu dal leen fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ñu ñu toj gimiñam <laughs> ñu toj jëm ñu toj jëm toj boppam toj euh, bakkanam oomam oomam ñu toj loolu lépp loolu li loolu li ko ko yóbbee mooy jullit ñi nga xam dañoo wàcc ndigalam léegi nag anas dik ni yàlla Eh, maa ngi ngantal si ñële maa ngi ngantal si ñële mooy lan mooy eh, jullit jullit ñi lañ la ñu mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi maa maa ngi sàkku ñoom nga baal leen waaye maa ngi ngantal si ci yow tamit ci ñi yéeféer yi def yonente bi alayhi salaatu wasalaam léegi nag daal di jël jaase nag dugg na di xeex ak yi parce que xare uxut dafa dafa xaw a gudd maanaam euh, xeex bi ci boppam nekkul kom xeexu badar de léegi nag euh, ñuy xeex anas anas di dugg ci ndaxte anas moom di dugg di xeex anas di xeex anas di xeex ñu koy jam ak ñu koy jam-jamee ay jaasi ak ay xeej ak ay lu ne anas jam nañ ko jam jam goo xam ni fekk nañ ci ci yaramu anas lu ëpp juróom ñett fukki jam jam kenn xàmmeetu ko benn maanaam benn sëram moo ko xàmmee ci ay baaraamam loxo xool daa kon ci anas la gisatu ko ndax ndax ay jam jam yàqate yàqate yaram bi ndeysaan moo tax yàlla wàcc alquran daal ni min almuminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi fa minhum man qada nahbahu comme anas anas ak ñu mel ne anas wa minhum man yantazir am na ñoo xam ne ñu ngi xaar wante xeex wante biir yéeféeri comme ni ma ko Ali ak Talha ak Zubair ñoom dañoo mel ne ñoom dañoo mel ne dañoo dominer yéeféeri ndax xeex xeex bu benn ndax seenum njàmbaare Ali bu doon njàmbaare Talha bu doon njàmbaare Zubair bu doon seen njàmbaare Talha sax moom Euh, loxo loxo bi ci la ci la ci la paralysé ndax ci la ci la làgge ndaxte euh, yonent bi alayhi salaam la la doon défendre ñu ñu mu am xeej buñ sànni mu yonent bi mu yaa Rasulullah euh, sëgg sa yonent bi daal sëgg boobu ma xeej bi talxa talxa di arrêté xeej bi téye ko mu daal dal ci ci baaraam yi moo tax talxa baaraam yi dafa mujj làggi ba noonu la noonu la continuer noonu la noonu la génne àddina maanaam xeex na xeex bu metti keroog moom pala talha ak zubair ak ali ak hamza saad bin abi waqaas moom sànni la doon def moom yàlla ko may ak sànni moo tax yonente bi bi ñuy sànni yonente daan jël leen lépp ngeen jox ngeen jox ngeen jox saad bin abi waqaas léegi nag yonente bi daan yaa saad irmi yaa saad fidaaka abi wa ummi moo tax saad rek la yonente bi mës a wax ci addina bi fi fidaa ko maanaam jote naa la sama papa sama yaay saadu dong la ko yonent ma sax mooy saadu na di waqas ndax keroog la mu sànni ci fett lu mu sànni du mooy def na lu lekk na ndax dafa nekkoon li ñi may wax yëpp ak ñaar fukki nit lañ bariwuñ ci ci ci ñett junni nit dañuy def liñ mën rek dañuy def liñ mën wante dem nañoo dema dema dem ba ñoom ñëpp ñu sonn ah, ña cay génn àdduna génn ci àdduna ko ci mel ne ñoom Musab ibn Umayr ak ñoom Abu Dujana ndeysaan ak ñeneen Nusayba bint Kaab moom bi mu ñëwee ibnu Qami'a bi muy bi muy bi muy dóor yeneen bi lool Nusayba moo ñëw taxaw ci digg diggante mag Nusayba dafa muuru dafa dafa dafa dafa laxas dafa maskawu mu yaakaar ñu góor la ñu xeex Nusayba jël jël jaas yi di di euh, euh, maanaam daal di bamax ibnu Qamiya ibnu Qamiya Qamiya ba ma xaar ibnu Qamiya dóor dóor loxo bi jaas ji wadd mu dóor ko ci mbagg dóor na ko ci mbagg dóor ko ci mbagg yi beneen dóor ci beneen mbagg yi léegi nag ibnu euh, Qamiya xamuloo ni ki muy jëflante ak jigéen la Nasiba bi ñi Nusayba bintu Kaab ñi Nasiba bintu Kaab te mooy Umu Umaara ba mu daanoo nag bi Nusayba daanoo parce que Nusayba yéen tamit la la la doon bañ la doon bañ ñu ñu laal ko yaa ngi dégg. léegi nag subhanallah jigéen ji jàmbaaree nii jigéen de ibnu xami ak jaasim li mu wan yonent bi sallallahu alayhi wasallam Nusayba ñëw taxaw ci diggante ba Nasiba bintu Kaab ñëw taxaw ci seen diggante ñoom ñaar léegi ni ibnu xami ak bi mu xamee ni jigéen la mënu ko sori ma du ma du ma jigéen léegi euh, euh, bi nga xamee ni xeex bi Euh, dem na ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam jéem ko rawale nañ ko ba saxaaba yi war ko noonu ubay bul xalaf dafa waxoon bu yàgg daan ni yaa muhammad te mooy ubay bul xalaf al jumahi al qurashi fekk da ko waxoon bu yàgg ni ko sama fas wi de maa ngi koy yafal bis bu nekk nangam ci xont na ko leer ni dama dinaa war ci sama fas ray la yow Muhammad yonent bi ni ko bal aqtuluka insha allah man maay ki lay rey léegi nag man maay ki lay rey sa kaw fas bi moo tax yonent benn nit boobu dong la ma sa rey mooy ubay mu xaraf léegi nag bi lii amee ubay xam ne yonent bi sonn na mi mi mi ngi tëdd noppalu saxaaba yaa ngi ko wër mu ni na Muhammad ayna Muhammad ñëw bëgg a song yonent bi bi mu nee Muhammad saxaaba yi ba ba ko son ba ko bi ni bu ko kenn laal man mii subhaanallah yonent bi jàmbaar xoolal li oom oom toj dañ oomam toj jëam toj bakkanam toj boppam loolu lépp yonent bi man maa koy man maa koy koy rey bi daal di jóg jël benn xeej yaa ngi dégg bi mu jëlee xeej yoon la ko sànni euh, euh, euh, kale ubay bun xalaf alayhi laanatullah benn yoon après ubay bun xalaf daañu qatalani muhammad qatalani muhammad wallahi laqad tawaadani annahu sa yaqtulni qatalani muhammad xoola subhanallah moom ci boppam gëm na li yonent bi wax maanaam lu mu wax muhammad rey na ma muhammad rey na ma daf ma daan tëkku naan dana ma rey mi ne rey na ma noonu la def daal di deewee moom it ca kaw fasam la deewe ila jahannam wa bisa almasir wa alayhi laanatullah kon euh, jullit ñi def na lu man mën léegi nag ña daw yàlla euh, léegi nag jullit ñi ñeex ba gannaaw ba leen yàlla tege euh, njàqare yàlla nag indi jox na leen sécurité indi na leen sécurité mooy lan mooy daf leen a xëpp ak ngëmmentu moo tax yàlla ne summa anzala min baadi xammin min baadi lxammi amanatan summa anzala alaykum summa anzala alaykum min baadi lxammi amanatan nuaasan gannaaw njàqare mi yàlla wàcce na ci seen kaw lan ak sécurité ak dal ah mooy lan maanaam ak dal xel la ja eh, maanaam ak kóolute sécurité mooy lan mooy mooy ngëmmentu xam nga nit ki bu bu bu jàqee du gëmmentu te am na ngëmmentu yoo xam du la teye xeex moo tax talxa ne na jël naa sama jaasi ba tay mu wadd ndax gëmmentu mais gëmmentu yu ndaw nag nekkul gëmmentu koo xam ne ngay tëdd euh, nelaw waaye ak ngëmmentu ngëmmentu googu li muy firi mooy demu njàqare mooy njàqare mu amatu fa yaxsha taifatan minkum ngëmmentul ñenn te mooy jullit ñi wa taifatun beneen kuréel bi na moom qad ahammathum anfusuhum foofu lañ koy yemale te mooy naafiq yi incha allah bu subaa ñu con ñu continuer ko euh, dañoo bëgg ni ko maam di di boole alquran ji ak euh, euh, qissa bi ci boppam li nga xam ne moo ne ci téere yi foofu lañ koy yemale ba suba incha allah ñu continuer ko tey xam naa ni wax ci saxaaba yi du mën a nekk ndax dañoo maanaam euh, xaw a guddal lool ñu ngi koy ñu ngi koy jéglu wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh